réew dafay torlu à des moment historiques moment historique boobu la ñu toll. le 17 novembre ci la chambre administrative bu Cour suprême di wax ci pourvoi en cassation bi nga xam ne instance de l'État déposé na ko foofee. muy recours bi mu def contre dogalu attekat bi nekk ci tribunal bi Ziguinchor di Ciss Sabassy Faye sàkku ñu dugaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi bu ñu sukkandikoo ci les écoles yi nee na fukki fan juróom-ñaar ci novembre ci la ci cour suprême di wax les écoles ba tey di xamle nag di yoon cour suprême buy statué ci mbir mi daf ci statué en tant que euh, cour d'appel maanaam daal dafay nag euh, daal attewaat mbir mi sëggaat ci fee xoolaat ko loolu ci la nag joxe ab dogalam loolu nag bu sukkandikoo ci les échos ñu waxtaan ak benn juriste xam le ne kon sañ na ko sañ na ko ndax ñaar benn dafa nekk en matière électorale su boobaa kon cour bi sañ naa daal attewaat mbir mi en tant que d'appel maanaam bu la attee première instance nga dem deuxième instance ba tey dañuy attewaat mbir mi waaye bu dee cour d'appel nag bu dee cour suprême li ñu xam nag mooy boo demee moom du xoolaat ci fee yi mais day xool ba xam ndax bu sukkandikoo ci les secours ñu sukkandikoo ci benn si kon xam la ni euh, chambre chambre administrative kon mbir mi daf koy attewaat su gaat ci fee yi bu ko defee nag su noppee bu fekkente ne jox na euh, dëgg euh, ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko dinañ koo tooñ su boobaa kon moom léegi jeex na Ousmane Sonko dina dugal ci liste électorale yi waaye bu fekkente daal di nag daal jox dëgg ñi xam ne ñoo essentiel de l'état kon moom itam kon jeex na Ousmane Sonko kon ak bokkam ci élection yi moom foofu lay jaare kon daal di narsaay kon firsi kon di xam ne tax mu sañ ko nag ñaar a tax benn lii procédure d'urgence la mënta xaar ndax élection yi waaye tam en matière électorale la kon moo tax moo xam ne ne bii yoon euh, euh, sama administratif mbir mi bu ci bu ciy wax dafay sëggaat ci fee yi xool xoolaat ko door nag wax ban dogal la ci euh, daal di jël.